alhamdulillahi alladi hadaana li haza wama kunna linahtadiya lawla an hadaana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jataayu Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ataala allahu baqaahu wa ayyadahu wa nasarahu kon ci ndigalam lañ ñëw fii di leen jeetli kàddu yu bàyyi ko ci moom ci këram gu tedd gii mu nekk ci biir nga xam ne yërëm ko ci coono bee tax waaye dara doy ko ci woon lu may toogal boppam ñëpp gis ko ndax li xew tax muy kàddu yoo xam ne nag mi ngi koy jëmale ci bokk jullit yëpp ak bokk taalibe murid yépp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi weesu di gan ak rasulullahi sallallahu alayhi te Serigne Touba fonkoon ko lool daa ko dundalal boppam ak jëkk ahiyatu mawlidin nabi min asasi ba ci njaareem kon ñi ngi ñaan lim ci daale ci biir jës bu ñëpp jàng ko dégg ko te xam ne mën naa yéwénal suñu mbir ci àdduna ak alaxira la ca dellu kuwaat mooy kàddu yu masaw yëm ci mbooleem koo xam ne rek loro nga ci xéewal gi nga xam ne suñu borom moo ko wàccee ci kaw suuf mooy taw bi waaye rawatina nag ñi dëkk Touba sëriñ bi nee na képp ku fi dëkk rek te ndox mi laar laal sa kër walla mu laal sa alal wala lu mu mën a doon rek sëriñ bi wax na ne mi ngi lay masawu ci loolu di ko ànd ak yow bu baax a baax a baax ngir xam ne bu soñoon képp ku dëkk ci dëkk bi rek jàmm nga fi nekke waaye nag nañ xam ne lu baax moo dul yombu te Touba nag moom la Serigne Touba waxoon ne daa waxoon ne ku fi sam xel indiwul saw xel dina la fi indi kon xam na ne ñëpp dañoo gàddaay seeni dëkk ngir tumuranke ak jaaxle ak bëgg dëkk ak sëriñ bi kon bu sañoon ku fi dëkk ku ne ci jàmm ga fi nekke ci teraanga rek nga fi nekke waaye yàlla suñ borom ci boppam nag moom ay dogalam te kenn du ko xëccoo moom mooy seet lu ko soob mu def ko te xam ngeen ne moom moom mii boroom liggéey bii di sëriñ bi xam ngeen nekk na ci Gabon samaaniya xijajin illa xalilan lu jóge juróom-ñetti at muy sottu ki ci ab taw kon loolu ku ci xool rek lu métti métti métti da nga am xolub jëm ko muñ waaye sëriñ bi nag nee na xam na ne taalibe yërmaane jëm leen ëndal mooy la Sëriñ Tuubaa waxoon rek wala ci maahil xuma mi ba kenn du fi dikkee njàqare moo tax mi ngi masaw bokki taalib yëpp ci lii xew ànd ko ñoom ndax lii kat xeexoo la boo xam ne bayuut kenn bayuut kilifa bayuutub taalibe bayuut kenn ñëpp la dal ci ndax kenn ku ne lañ ci yëgal sa bopp mën naa naa mën naa wax ne man mii jot li kàddu yi sax dañ ma mujj jël si oto waaye sama oto sax mënta génn sama kër kon ñëpp la laal laalu ka gën a suufe ba ci gën a ka gën a kawe ñëpp ko yëg mhm. jumaay Tuubaa ji li ko war gis ngeen ni meloon kon mbir la mu wàcc moo xam ne suñ borom nag boo koy ñaan la ma doon wax démb rek te suñu bilaat waxoon ne yàlla boo ko ñaanee la gën a bëgg day seet la nga gën a bañ boole ci kon nag sëriñ bi nee na taalibe yi xam ne mettit bi ñu nekkee ak tumuraanke gi ñu nekkee ak jaaxal gi ñu nekkee waaye nag bu ñu xoolee ci jëmmam ak yërmaande jëm ñu indi ëmbal rek nañu wóor ne yàgg-yàgg danañ tàggoog moom kon loolu mi ngi ciy dalal xelu ñëpp te li ko ci war fekkoon fekkoon na ko ci waaye da koy gën a dolliwaat kon nañ xam ne sëriñ bi dafa wax ne ci biir loolu nag sëriñ Touba dafa am lu mu digaloon taalibe yi bi muy digle jumaay Touba ji waxoon ne ku ne na ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett la ma waxoon ci yi dafa waxoon lii ma leen di digal nag fu waa jëm nag fu yóbbaale mooy lépp lu ngeen bëggati wala lépp lu ngeen sumbati rawat na lu mel ne néegu yàlla bi na ngeen ci góorlu seen kéemtalaay kattan def ca la ngeen la ngeen man ak la ngeen mënut te lu ngeen ca mënut fu ci seen doole yem ngeen dem laxasaayu wuti ko ci anam ko sell te fa ca seen kattan yem ngeen toog xaar fa sa ijaalullahu baada usin yusran daana trikki nag maa ngi leen di wattandiku loolu lépp ndimbal loo xam ne bu leen fa yalee seen ajo yi dañ leen xañ seen gor xañ leen seen xajamal seen xañ leen seen jom tilimal seen diine daane loolu nag la jiitu ci la koy maye mooy mën la sabab la jiitu ci la koy xañee mooy ñàkk mën la sabab kon taalibe ndigal loolee lañ topp baraay bi ñëw Touba ndigal la lañ topp ba jumaay ji ñëw ba nëgë ni loolay woy moo tax lu mën a doon ak lu mën a xew ji suñ biir itam balañ caa toog di xaar kenn nañ ko tàmbalee ci suñ bopp ba fuñ ci man a yem ku ñu cay fekk fekk suñu ca loolaa waral nag sëriñ bi ci yéen maa dem wax na liggéey bii xam na ne nit ñi sonn nañ ndax ndox mi ñi dugg na seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mënatuñu jàll mu ne kon yëkkati na ñaar million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko tàmbalee dox ndax juróomi téeméeri million sax la waroon génne loolu la waxoon da juróomi téeméeri million wala milliard laa war a génne sax joxe ko tàmbalee ko waaye ginnaaw bi ko waxee ne ko na tàmbali rek fu ñu toll mu toll fa ak ñoom mu ne na joxe ñaat téeméeri million bi mu ko génnee itam ngir bëgg ñu ñu tàmbalee ndimbal teg ko nag ci ñetti daayira yu mag yii nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi kon sëñ Abiou mu Cheikh du Fadil mi nga xam ne moo jiite daayira Touba ci kanam dana jox ndigal sëriñ Abdoul Ahad Mbacké sëñ Abiou bu mu wax ci turam ndax sëriñ bi xam na ne fekkoon na lañ ci ñu nekk ca joxoon na ci ndigal bi yàgg waaye ña ngi ci woon kon dafa def genn kuréel goo xam ne ñoom ñett ñii ñëw koy seq sëriñ Youssou Diop bu daayira bu Tarqiyyah moom itam mu ànd ko ñoom ndax baat ma ci sëriñ bi tegal ma ñoom de lépp lu jëm ci organisation luñ ci bëgg rek mën nañ ko ba ca mooy sëriñ Abdoul Ahad Ka yàlla def na ma sëriñ bi di woo ko fekk sax yëgoo woon bi ma waxtaanee sëriñ bi ba noppi mu ne moom kat daa mel ne lu mu noonu sax ko yëkkati ma waaye dama noonu naa bàyyi ba gis la ba noppi door koo jox door ko woo bi ko waaye sama kanam itam laaj ko mooy mu waxoon ko dama doon laaj ci ndigal ba xam lu ma ci war a def xool naa ba gis ne war naa am lu ma juróom-benn fukki millions yoo xam ne dama mënees ko jënd ab ceeb ak ak diw ngir séddale ko nit ñi ñu boole ñetti kuréel yëpp nag mu nekk leen ñoom ñu ñu ñu waxtaan seen bi ba tënk ko sëñ bi moom joxe na xaalis bu noppi waaye ginnaaw bu loolu jàlle it nag ñuy soñ bokk taalibe bi murid yëpp ak képp ku bëgg lu baax. te man cee jëf dara lu néew néew bu mu ci xeeb dara bu mu ci yëm dara ndax euh, lottu nit ñi moo toll foofu te nit ñi kat hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alimin tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon jihaad ci sa jëmm ak sa àll dara ëpp doole kon sëriñ bi nee na mi ngi jege taalibe bi lépp loo leen waaye man a dimbalee na ko def bum mu ci xeeb dara bum ci yem dara ku am kër ndax xam ngeen ne màggal tuba màggal gi jàll na màggal tuba gi jàll na ndegam màggal gi jàll na nag kër yu bari seen borom néewtuñ fa kon nag rikk waay ña nekk ci ña moom kër yooyu yee ak lu kër ga rafet rafet buñ ko mënee jël aale ko ngir jëm Sëriñ Tuubaa te xam ne kat yonente ba mu gàddaayee Makka dem Madina muhaajir ak al ansaar ñëpp xam nañ ne mu demee dañoo ñii dañoo génn seeni kër joxe. kon nag nañ xam ne ku def loola itam daa tabbi ci biir loola kon ku kër goo xam ne tëj nga ko te kenn néew fa war nga ko mën a aale ñaari weer wala ñetti weer bu ko mu jëriñ ñëpp euh, ci biir ñoom seeni xalaat it fu leen mën defal ay tànt yoo xam danañ fa man di nekk ku ku miir sa miir te miir ba da koy denc rek ñu ñu def fa ay ngir nit ñi mën fane ne ndax sëriñ bi ci wàllu bopp moom xalaat na ci. lotissement bi mu def ci yoon Touba Belem dana fa jël diir lu yaatu tabax fa ay kër def ko addee Sëriñ Touba may ko nit ñi ndax xam na ne am na ñoo xam ne tumaranke leen ne boo leen génnee ci ndox mi ba nawet bi jeexee bu nawet bi desuwaatee fa leen di fekk ndax dañoo dëkk ci xur yoo xam ne lu fu nit war a dëkk loolee itam am na ci xalaatu boppam boo xam ne allah bu bi jàllee wala feeg bi jeex dana ci tabax fa ay kër yu bari def ko addee Sëriñ kon loolu itam lu ci waay mooy def rek. ngeen xam ne lépp moom lañ koy defal waaye lu ci waay waaye def Sëriñ Tuubaa lañ koy defal te Sëriñ Tuubaa kat waxoon na ne ku ma defal loo mën ma defal loolu loo mënul ku ma defal loo mënul ma defal la jomb kon nag lu ci waay defal nga xam ne pay ga Sëriñ Tuubaa gawu seqal kon ñu ngi jeexal foofu kaddu yi di jox Serigne Abibou mu jox Serigne Abdou Lahad ñu àggale kaddu yi ci des asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh